pire encore de prostate. est ce que xam nga da ngay am prostate nga dem hôpital prostate nag à partir de quarante cinq ans koy am góor rek moo koy am jigéen du ko am. paa yu bëri sonde la ñuy doxee. gars yi boo demee ci yenn hôpitaux yi ñoom dañoo war seen clinique fi ñuy dóor xaar fi ñuy def xarmat dañuy def tout possible pour virer la foofu pour ñu mën a am xaalis. opération lañ la defal te téye exposé. man quatre semaine laa lay faj prostate.

dañ daan gis ni mooy mooy prostate boobu nga tudd dañuy gis ni ku ci dara rek da ngay gaaw profito dem hôpital ah gis tubaab yi ñu bindal la ay comprimé des fois nga ñu def ay poche affaire yooyu noonu yow tay ji nga ne da koy faj hmm. ci cat semaines déggoo ma de lu tax yéen doon gëm suñu bopp tubaab daa xam dara man gëmuma leen mais amna ay yalla du may lépp yoo xam ni du may lépp dégg li la wax yalla daf len may ñu meuna ñom sen comprimé parce que quand on me dit même médecine moderne médecine traditionnelle ça m'étonne quoi médecins médecine moderne médecine traditionnelle tout ça vient des mêmes médicaments tout ça vient des plantes arrêtez merde les blancs là si se soignent une plante plante la jël naturopathie la fajo fajoo un xam ñu anglais di drugstore de la drogue ki ñoo xam ne tout médicament est un poison di kooka jàng nga ko man damaa gëm sa man damaa gëmul tubaab ko gëmul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam xamoo waxtu julli gëwuma la faalewuma la. mais yow docteur euh, garab yi nga xam ne yow yaa koy jox sa ay patient yow yaa koy defaral sa bopp. c'est-à-dire. médicament yi ngay joxe yi ngay prescrire sa ay. patient man damaa defar defar non en fait à partir de. plante yi nga xam composition d' accord composition yi ñu ngi def suñu composition ñoo xam suñu dosage. ko kay c' est tout à fait normal. nee naa la man garab yi faj yi ñëpp ko am. mais dañoo jàngul. xam nga nga yeew gis sa papa di faj. nga xam ne garab bi bii xeñ bi lii lay faj. Mhm. rek nga toog paa bi dee na rek nga toog nga naan da ngay faj. boo nee nii ñu naan da ngaa doon xam-xam. xam nañ xam-xam dañ koy doon wala dañ koy jàng. dañ koy jàng. nit ñi xam nga nit ñi Sénégal moo bëgg koy nax xam-xam dañ koy jàng nit ñi même boole leen déggee ni ñuy waxee da nga xam ne ñii ay dóorkat lañu. Sénégal nag moo bëgg ko nax mais problème bi aussi yenn yenn médias yi la. dañuy tendre micro à vourien vauriens duñu gëstu li ngeen di fay rek lañuy xool ñu tegal sa vidéo ñu def double maladie nag le malade n'est pas guéri la poche est benn défaut daal am naa ko damaa tàng mais faj moom kenn dàqu ma ko ci àdduna te moom xamal la benn affaire soo dul wér duñu jàkkaarloo duñu jëflante mukk mun nga ñëw kër ga nag duma ñaan mukk képp ku dul wér bu mu ñëw sama loolu du ma ko ñaan parce que <laughs> boobu dee laa la ñaanal boo yeewoon ak pour ñëw nga accidenté ci yoon bi kooku du ñu du ko ñaan damay naan yàlla bu ñuy jëflante yàlla bu mu am échange mun nga ñëw rek léegi-léegi ñu xuloo c'est que da nga dul wér Parce que Abdoulaye Diallo, assis sur son bureau, en train de traiter, Abdoulaye Diallo ici, à Sénégal 7, et Abdoulaye Diallo dans sa voiture, Abdoulaye Diallo dans la cour de sa maison, c'est pas pareil. Si je suis fait, c'est le lieutenant de Dieu qui, est là. Dieu a dit, j'ai jeté, j'ai mis sur terre mes lieutenants. D'accord. Docteur Diallo. Vous voyez, ah dama am ngeureumal seigne Touba de ak sa lu mu amul soxlo ko suma toge di faj damay ñaan damay naan yàlla abana gémmiñu Cheikh mohammed fadil mbak ibn khadim Rasul fum mu doon wax ak yow koy nangul abana loxo Cheikh Ahmed Bamba khadim Rasul ibn maryam o ma Mor Anta abana loxam bobu mu doon tagge yenent bi di faj minde fi su ma wàccee ma teg dégg nga wala déggoo dégg naa lu baax mais docteur. xam nga dara bu la réeree. Mhm. ma jox leen benn secret. Mhm. ne yàlla àbb naa la gémmiñu annabi Moussa fi mu doon wëree yaayam rek di ko gis. loolu secret la. Mhm. xaj na gars yi xamuñu koon woon mais docteur euh, am na ñoo xam ni dañu seetaan émission bi yëpp docteur ku la bëgg a gis nu muy def. petit mbaaw. Petit Mbao boo ñëwee entrée Petit Mbao clando yaa ngi foofu képp koo ne kër docteur Abdoulaye Diallo ci mango yi ñu indi la ñëpp xam nañ parce que y a un autre Diallo kooku Ibrahima la kooku médecine moderne lay def côté Grand Mbao bi la nekk moom moo fa jiitu plus de cinq ans mais bokkuñu médecine moo tax ma ma yokk ci ci mango yi docteur Abdoulaye Diallo ci mango yi wala sax kii génn YouTube rek Petit Mbao rek nga nekk Wow. Petit Mao, lundi, samedi, dimanche, lundi. Mhm. Avant, je travaille tous les jours. Mm -hmm. Je suis fatigué. Je suis épuisé. De ma son, Billay. Les samedi, dimanche, lundi, là, il à Dakar. De 8h à 14h. 8h à 14h, mhm. Même si vous êtes 1000 personnes. De mon watch à 14h, fait que recevoir au Le travail est rapide. Si vous avez des gens qui ont fait des choses, vous avez fait des choses. D'accord, mais dina la recevoir. Petit Mbao rek ngay bon les mardis après midi. Je suis allé mardi matin suis bi madame village parce que papa ak yaay puis nous je vais me rapprocher d'eux profiter sur eux profiter sur eux qui profitent sur moi. Mhm. xam nga que papa mu xamal la secret wala dom ak yaay. Mhm. dafa melni torture tortue ak est-ce que xam nga du day xool doom ji rek doom ji rek. kéemaanu yàlla. waaw leen dem ci seen pap ak seen yaay ngeen leen nemmeeku xool bi ñu leen di xool rek dafa lu muy def ci yéen. moo tax képp ku tukki nga def huit ans. sept ans huit ans ou plus. da ngay tëju bu dee sax yoo jot ñu ngi dund. même boo doon ni un milliard par mois da ngay tëju parce que. xool bët bi ñu la war a teg. mënuñ la ko baal même bu ñu la ko baalee yàlla du nangu xam nga ñaan waajur du nangu. ñaanu way jur du nangu man gëwuma loolu dom mooy liggéey li tax ñaan di nangu d'accord est-ce que comprendre faire bu baax yooyu yaay liggéey li tax ñaan bi nangu xam naa nag waa TikTok dañu dagg nag naan ñaani waajur du dagg euh, du nangu ñu ñu ñu ko foofu tellement dañoo méchant dama li tax ñaan bi di nangu bu doon kay ku nekk sa doom buy buy dem examen da nga yàlla na am examen. Mm-hmm. tax na tax na nga am. ku doom di jàngi day naan yàlla nga doon président de la république tax na nga doon président. sa doom a ngi ni feebar bay bëgga a ngay ñaan guddi gi yëpp ngay tufli ci moom day tax mu wér. xol bu sedd mooy ñaan nit day seddal xolu waajur man de sama waajur bu jigéen mooy lépp mooy sama sëriñ de. mu ngi noonu mbokk internet du Sénégal 7 ba tey ñoo ngi janoo ak docteur Abdoulaye Diallo ku ko bëgg a gis nag comme ni nga ko waxee sànq nga dem euh, Petit Mbao euh, boo laajtee clando yi docteur Abdoulaye Diallo ci mango yi comme ni nga ko waxee sànq docteur xam naa du ñàkk sax dina am ñu bëgg sa numéro mais dinañ ko teg ci euh, en bas de docteur am leneen loo xam ni sonal na sénégalais yi mu di jabet mm-hmm. ñu dégg aussi nga ci def ay jaloore mm-hmm. macha allah ba am na sax ñenn ñoo xam ñi ngi def ay Garap mhm. docteur lan ngay garap. Garap. garab. rab Garap ah, garab. garab. garab woo ma rab rab dama koy faj. Mhm. trente borom di fay. kooku parenthèse trente mille tagoo nga garab. fii ku fi ne day faj rab bi lay da ngay wax loo neex. di la ñu lay saraxu di di leen laaj. gis fi ñoo xam ne dañuy dikk di jat nit di jat nit ba muy daanu. ay fen ay fen la rek. kasib ay ah, fen la rek ay montage la rek. boy la ñuy fay rek di filmer wallahi caaxaan la fu ñu mujj ñu ko doon def léegi anuñu fayuñu. gëj nañ leen dégg de. ah ma fii Diallo rek mooy des ci terrain bi parce que dégg laa yor.